دكتور السلام عليكم leen sant seen tertu bi problème bi ñu am mooy defe naa président Déthié établir une grille buy permettre ñu départager je crois que. mais leen ma tuuti rek. may matuti, ma matuti, may matuti. Samgen. Samgen kampanye campagne bi dañ ko bëggoon def campagne waxtaan ci lo xamné ne fu ñu dugg ba génn fa rek mu doon jëriñ ci suñu andando bi pour défar Sénégal moo tax donte waxtaan bi ñu war a séq ci pôle bi dëgg dëgg dëgg mi ngi am ëllëg incha allah fële ci Mbàkke waaye fu ñu dugg rek nañu am tuuti luñ ci sànni fii ak ñaari at gën saa gudd ñaari at ak genn wàll dinañ dëgmal élection mairie bu boobaa lu leen naqari ci mairie di ngeen ko faj ba mu mat sëkk incha waaye waaye li ma leen mën a gaaral rek li nga xam ne mun naa ko wax mu leer fi ñu jaar yëpp ñu wax ko fa daan ko wax ba ñuy nekk opposition ba tey yàlla teg réew mi suñu loxo. mooy réew mi njuuj njaaj jeex na fi takk mooy réew mi dina tegu ci jub ak jubal ak jubbanti ba mu jub xocc mais li ma bëgg a waxtaan ak yéen lu gàtt la gis ngeen campagne bi yàllaa ko andi ci période bii

fii juróom-ñaari at ci gannaaw en 2017 wala juróom-ñetti at maximum ci la njëkk a ñëw campagne fii waaye Matar Sène suñu campagne booba ute naa campagne bii ndax bi ñu dugg see Jurbel ci jamono jooju dañ doon wër di seet fu ñu gis grand place rek ay nit ñu daje toog di waxtaan rek ñu ne ñu taxaw fi waxtaan ak gars yi peut-être ñu xàmme noonu lañ ko jàppe ba guddi fekk ñu fii ñu dem fanaan kër Matar Seen daal di xëy dem waaye jo amoon nañu jot ni dugg bi ñu dugg Diourbel waa Diourbel yéeguñu sax ni candidat dugg na fii kon suñu ñëwee ba tey ma gëm ne bu ñu ñëwuloon sax bu ñu ñëwuloon ñi ñu fi teewal bu ñu wootee ngeen wuyu si leen loolu lu muy wone mooy évolution bi am ci combat wu Pastef à travers tout le Sénégal ndax li ma wax fii ñaarim moom ngay fekk feneen ak feneen bi ñu dooree campagne ba léegi loolu lu ñu liggéey la liggéey ko ci ak dal ko ci woné lan différence ak liñ fi ci ay acteurs politiques ko ci nek ci wetu askan wi di len wax deug di len wax défar réew di dénoncer toujours yak sénégalais yi dañoo toll foo xam gëm naa ni ci peuple yi gën a ci ci peuple sénégalais ci la loolu nag dafa mel ni bëri na ay acteurs politiques yu ko comprendre gul ndax li may wax rek waa boor bële ñaari camp lañu ñaari camp ju ñi nga xam ne mës nañoo am ay responsabilité ci réew mi te randal alal réew mi jaay intérêt réew mi ñooñu man damal toog ba si yàgg ma ne ñooñu bu ñu demee seeti askan wi lan lañ leen di wax tay gis na ben candidat nga xamné mom dafa xaw manké touti xorom xorom bi la xaw manké ba ko gis boru njum xaw muy taxaw ci kanam askan wi naan rew mi mën na bax ci lu gawa gawa gaw ci ko xamné pendant 12 ans nek nga ministre des finances nek premier ministre defo fi dara tey nga ñëw taxaw ne nañ la yóbbu assemblée nationale nga defar réew ñaareelu catégorie bi mooy ña nga xam ne bu ñu séenee takk ndeeru Ousmane Sonko sax seen xol di bëgg a xotti ñooñu tamit ñu ngi wër réew mi Oui, je veux faire ñu proposition Je amul en Je pendant dix ans. Je ay Je veux ñetti livres. suis en livre pétrole gaz Je wax leen naka lañ ko ak naka contrat Sénégal. veux 2019 mon candidat livre solution présenté ko publiquement woo ay boroom xam-xam ñu ñëw weranteeg man ndax lii baax na wala baaxut ñu dëgmal élection locale ma ànd ak doomu njaareem bii di Balla Moussa Fofana ñu bind livre boo xam ne ci la sukkandikoo ba def les huit pôles yi ngeen dégg tey jii kon man ba may ne ci opposition maa ngi doon def proposition ba may nekk assemblée nationale su ma critiqué dinaa proposé waa gaa yooyu di bëri wax di wër naan sonko ko wax leen ñaata proposition la ñu defagum Sénégal zéro proposition moo tax moo tax ñoom boo leen boolee ñaari groupe yooyu yëpp nga xam ne lu ne yàkkante nañ ko nag fii Sénégal xeex nañu saagante nañu tëjante nañu kaso lu ne def nañ ko tey ñu gis la dynamique j'allais dire la vague la déferlante bi nga xam ne kenn mënul tere mu soppi réew mi ba faw bu doon ñu baax lañu bu doon ñu baax lañu dañ naan ah nun de jox nañu suñu chance defuñu lu nit ñi xam bu ñëw ci jub jubal ak jubbanti ci vision 2050 ci patriotisme ci delloosi dañ naan ñëw suñu mënul jàppit nañu maandu dem toog waaye nga ñaari sax ñu dem seeni télé. gis nga le 17 novembre le 17 novembre kon moi je parle toujours à la jeunesse sénégalaise avant même de parler aux autres couches ndax cette révolution sen la révolution dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans

mooy réussite doomam mooy progrès doomam ñetteel bi tax ma leen di waxtaan may waxtaan ak yéen jeunesse bi mooy yéen dangeen am chance u boo xam ne ñun bi ñu nekk xale amuñu ko woon mooy da ngeen am chance u tombe ci époque boo xam ne am na lu ñuy tuddee les réseaux sociaux saa yu ngeen xëyee connecté wu di xool li xew ci àdduna gis ngeen démb wala barki démb li xew États-Unis loolu soo koy jàngat dangay xam ni askan yi xam nga lan la ñu bëgg léegi ay leader yu wax ak ñoom lii seen njëriñ loolu rek moo tax américain yi votel Trump ah. parce que moom dafa ñëw wax leen ne leen Amérique d'abord man America first la wax mooy balaa ngay xalaat keneen ak keneen naka laay def ba sama askan ñun nag ñu ci amoon ñu diriger ñu ñoom waa bitim réew la ñuy njëkk sedd sédd doo ko xalaat réew mi moo tax yéen ñii di xool li xew ci àdduna xam ko mën koo méngaleeg li média yi di wax ndax média Sénégal yi yéen a gën a xam ni ñu ci ëpp ci ñoom ay ay ay mercenaires lañu yoo xam ne dañ leen di ruux di leen jox xaalis pour ñuy wax luy yàq waaye du ñu wax dëgg heureusement que réseaux sociaux am na ci réew mi te réseaux sociaux moo ëpp doole téeméeri yoon média fi mu toll moo tax xeex nañu pendant dix ans. nee Ousmane Sonko salafiste la Ousmane Sonko rebelle la Ousmane Sonko ay ay étranger ñokoy financer financé lu ne wax nañ ko waye média réseaux sociaux yi lu ñu fenn ci suba gaay yi ko le soir lool la bëgg ngeen continuer ci liggéey boobu waaye ngeen xam ni nag nekkatuñu opposition ba ngay ne opposition da nga doon nekk ci position défensive mooy da ngay dañ lay song nga défendre sa bopp léegi ñun ñoo yor lenge gi boole kook li ñu yoroon ci opposition mooy cette formidable force de la jeunesse moo tax gars yi duñu seen morom tey duñu seen morom ëllëg te seen novembre dañ xam ne duñu seen morom moo tax comme nekkatuñu opposition nag comme nekkatuñu opposition ñun ñoo takk càq bi dama bëgg léegi seen force boobu ngeen am ci réseaux sociaux yi ngeen orienté ko ci fësal programme bi nga xam ne moom la ñu teg pësal liggéey bi ñuy liggéey waaye yee Sénégalais yi nga xam ne dese nañu yeewu ñenn ñi te bëreetuñu loolu la ñuy xaar ci yéen léegi est-ce que pare ngeen ko. jeunesse de Ndiarème jeunesse du Sénégal population de Ndiarème mën naa leen jox benn garantie fii. mën naa leen jox benn garantie fii. ci wala ci nële wallahi yalla mi ñu tiim on va réussir à transformer ce pays de manière qualitative Non du ñàkk nag Non du ñàkk parce que am na loo du ma ko tuddee adversité pour man noonu la waaye gis ngeen noonu googu bis mu ne mu gën a rek parce que dëgg bu ko mus a méngaleeg lu dul dëgg te ñun xam nañu ci dëgg la ñu nekk defuñu politique pour alal defuñu ko pour tur buñ ci am politique yàlla la mooy nga sonn pour sa askan baax loolu mooy politique ce que foog ngeen ne ñii ñi nekk ci bi loolu mooy seen gis-gis ci koo ci gis muy lappi-lappi nu muy def ba am la nu muy def ba ñu jox ko mu damm fonctionnaire milliardaire gis ngeen ko fi te loolu moo tax ngeen war ñu jox nag majorité bu baax assemblée parce que kenn ku ne ci ñoom dina ñëw wax ay milliards fan la ko jëlee ak naka la ko amee parce que fonctionnaire mënul yor ay milliards. lii la ñu yàgg wax bi ñu nekkee opposition man nag lu ma mës wax en tant qu'opposant bu ma ñëwee ba yàlla jox ñu léegi gi noonu lañ koy doxalee rek parce que gor ca wax ja te li tax nag.

nee nañ ma tari njaareem mi baaxul loolu jarul wax ndax ku dugg njaareem gisal ko sa bopp nee nañu liggéey amul ci dëkk bi xale yi ay jakarta lañuy ñuy dawal nee nañu paj mi des na njàng mi des na loolu lépp gis nañ ko nii mu amee njaareem noonu la amee Ziguinchor noonu la amee Ndar noonu la amee Louga noonu la amé fenen ak fenen kon ñu xam ni ñi ñu jité won pendant 64 ans dañu échoué ligéyu ñu amuñu teguñu mbir bi ci xam-xam waaye surtout teguñu ko ci bëgg réew muy patriotisme est-ce que bëgg ngeen lool yëpp ñu faxas ko fi bëgg ngeen changement yi am dama leen di netali dama leen di nettali benn histoire dafa am benn père de famille moom ma nga dëkk fu sore sore ci ndakaaru yàlla def dooleem néew lool lool benn bés mu jël doom yi jël ñeenti doomam dugal leen ci car rapide dem ba almadi bu dem seet kër gi gën a rafet ci almadi mu ñëw taxaw ak doom yi leen est-ce que bëgg kër gii rek doom yi yooxu ne ko way bëgg nañ ko bëgg nañ ko parce que pour ñoom seen baay day jënd kër gi mun leen bu ngeen bëggee kër gi il faut bien travailler à l'école la ñu bëgg def ci Sénégal deuxième guerre mondiale Angleterre dañu élire benn premier ministre bu tudd Winston Churchill mu ñëw xam ni àdduna jafe na lal la wax waa dëkkam nee na leen li ma leen mën a dig mooy rongoñ gi dina bëri deret dina tuuru waaye au bout de l'effort il y aura victoire éclatante ñun nag deret du fi tuuru ndax réewu jàmm la alhamdulilah waaye il faut ñu xam ne ñàkk bu bëri moo ñuy xaar il faut ñu xam ne liggéey gu bëri moo ñuy xaar te man mi koy woote maa ciy jiitu ñëpp président Bassirou Diomaye Faye moo ciy jiitu ñëpp waaye dama bëgg ndaw ñi xam ni toog muy dox amul fenn toog muy dox amul fenn xaalis kenn du ko lijjanti dañ koy liggéey ñun ñii di état suñu responsabilité mooy ñu fexe ba teg cadre yi permettre kenn ku nekk liggéey su turlu waaye bu loolu amee dañu bëgg ngeen ànd ak ñun ci liggéey bi su France baaxee ay nit a ko liggéey nit liggéey na ba bàyyi ci bakkanam soo déggee métro de France ay nit a ko doon gas les États-Unis baaxee ay nit a ko la première chose bi ñuy woo Sénégalais Nous xam ngeen patriote du Sénégal pour le travail le travail Nous avons nañu chance de faire un nouveau départ 2000 nous avons une am chance 2000 avec Abdoulaye Watt. mu jaar un combat d'opposant pendant 25 ans dem nous vous une première alternance am déception am au bout au bout de 12 ans sénégalais deuxième alternance pour man accident de l'histoire la la vraie deuxième alternative alternative pour vous. Vous vous liggéey Vous potentiel agricole muy rawatina gerte gi ku leen ni gerte gi baaxul da nax gerte moy lo xam amul luñ ci sanni xott bi dañ koy def saabu ak produit gi nañ ko def luñuy lekk nañ ko def à côté ak Copéol ak yeneen ak yeneen xam ngeen ni l'huile d'arachide bokk na ci ñett diwlin yo ne lañu ne rek nga mune kon loolu rek mun na développer Njaaréem waaye ñu privatiser woon Sonacos jox ko Abbas jabeer deful investissement yi mu war a def ba dellu suñu delloo ko 3 milliards mu dem yoonam loolu moo tax tey Sonacos nekk nii mu mel waaye gis ngeen bi ñu toogee ba léegi directeur général bu bees bi ñu fi teg mi ngi def liggéey bu mucc ay mais loolu départ kese la li ñu def ren ci mbay mi ci ji bi ak ci engrais

mais ma wax leen ni lañ ko doon jëndee daaw liñ koy jëndee ren moo koy ëpp doole fuuf loolu moom man maa leen ko en tant que premier ministre du kon li bëgg a def ci politique industrielle mooy fexe ba lépp lu ñuy liggéey fii ci biir réew lu ñuy bay ci biir réew dégg ngeen problème mu ndox bi dégg naa fi sax am na benn commune tamit Gadde Escale dégg naa ndox sax amuñu ko mais yéen premier programme bi ñu lancé ñun lan la le grand transfert d'eau pour que ñu régler définitivement problème mu ndoxu Njaareem problème mu ndoxu Touba Mbacké problème mu ndoxu euh, Thiès problème mu ndoxu Mbour ak problème mu ndoxu dakaar lancé nañ ko retiré nañ entreprise bi c'est des centaines et des de milliards waaye jar na ko parce que ay nit boo leen jox ndox bu ñu naan. soo leen diggee développement waruñu laa gëm su ma doon wax dinaa wax ba fajar mais loolu lépp nañ ci waxtaanee ëllëg incha allah fële ci meeting bi ñuy def am Mbacké te gëm naa ni ñu bëri ci yéen dinañ ñëw. waaye nag bu ñu weesoo loolu bu ñu weesoo loolu njaareem nag njaareem nag dafa am li ma fi bëgg parce que man njaareem. li ma dal ci yeneen dëkk yëpp moo ma dal ci njaareem mooy njaareem ci boppam dama koo bëgg ci sama xol njaareem njaareem dëkku culture la dëkku diine la may nuyu kilifa diine yi fi nekk yëpp kilifa Baye Fall yi kilifa eh, xali ki fa toogal xalif général ak képp ku fi kilifa maa ngi leen di ziar dëkku diine la dëkku culture la dëkku économie la dëkku liggéey la waaye njaareem dëkku résistance la ndax Cheikhul Khadim ñëpp xam nañ ni fii lañ ko téye ay at résisté résistance pacifique moo tax ma jàpp ni kenn warul jiitu njaareem ci li xew ci actuellement ci li ñuy def kenn warul ci jiitu njaareem bokk na nag li koy firndeel mooy le 17 tey la samedi incha allah dans une semaine dimanche prochain man fii njaareem bëgg naa fi gën saa gàtt 85 pour cent nga xam ne gannaaw ñu jox ñu ñaari député yi. dama bëgg rek xam nga kon ñun dinañ gaaw a juboo ndax yéen da ngeen da ngeen xàcc sori ma ne wàññil naa leen ko ndax ndax xam ngeen lu tax xam ngeen ma leen ko yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu rañaanee dem yàlla teg loxoom julli bi mu wàccee dañ ko ne tey ngaa dellu ñu wàññil la ko ndax damay ragal mu diis torop te su dellul woon bay suñu borom wàññil ko ko kon peut-être fi mu nii dañuy xëy suba ba guddi chaque dix minutes dangay ngay obligé julli moo tax yéen yéen même boo xoolee xam ni attan naa ko da nga koy wàññi tuuti parce que da ngay sóoraale ëllëg moo tax ma ne leen quatre-vingt-cinq pour cent rek doy na bu ñu ko amee bu ñu ko amee bu ñu ko amee est-ce que yéen waa Njaareem bëgg ngeen juróomi at yi ñu jëm ñi war a dem toogal assemblée waa Njaareem doon beneen bu dul liste Pastef Sénégal yëpp tànn liste Pastef ñu ne ka fa toogal Njaareem moom waa boor bu leen la bokk est que loolu bëgg ngeen kon su ngeen ñu joxé 85% non seulement dinañu am ñaari député muy Aliou Sène mi nga xamné ci membre fondateur parti bi la bok waye muy soxna Kumba Ndjay momit waye yéen liste nationale bi di ngeen ko dolel di ngeen permettre amana njaareem sax amaat ben wala yeneen ñaar député yo xamné ci liste nationale bi lay jox ndongo job mi nga xamné xam ngeen taxaway ci xex bi jàpp nañ ko kaso lu ne dañ na ko ci su ñu amee quatre-vingt-cinq pour cent fii am ko feneen xam ngeen ni Ndongo Diop dina dem assemblée nationale moo tax enjeu élection bi bu rek ñu ne gagné nañu waaye dama bëgg buñ ci jógee buñ ci jógee dafa war a am ñoo xam ne dañu war a dem retraite politique parce baaxuñu ci réew mi amuñu fi njëriñ lu dul wax lu dul noonu Alors, à ce arbitré je suis sûr que ce sera le cas le 17 novembre Quand nous ngi dire, gërëm di dimanche à 11h une élection est pliée parce que ku dugg ci biir bulletins yi nekk ci souffrent. di nga élection à 11h ñu ngi Nous